Eh, xanaa xanaa Fadel nag eh, lu mu wax yëpp am na am na lu ci lu ci lu baax sax au moins quelque sorte ci wàllu foncier bi am na lu mu am na lu ñu jot a def ci 100 jours yi quand même. mais <laughs> entamé nañ ay audit daal. ay audit foncier bi également ñoo ngi ciy def ay jéego xëy na am na am na lu ñu teg loo xam ne aussi. nañ fi travaux euh, ci littoral bi. gis nañ le président déplacé wu dem Mbour 4 récemment Anse itam gis nañ déclaration yi nga xam ne. premier ministre def na ko ci ay scandale yu fa gis journaliste da ngay inscrire ci trajectoire wu sa journalisme réew c'est-à-dire que c'est que le journalisme sénégalais est fekkee ne am na ay jafe-jafe yu bëree bëri yu ñu dund am na loo xam ne quand même euh, nous sommes tous dépositaires d'une longue lutte mm-hmm. am na tey jii suñu journalisme bu tollee fii parce que dañoo liggéey ñu ko xeex ci mm-hmm. ginnaaw mm-hmm. ñi ko xeex ci ginnaaw dañu dañu obt dañu obtenir loon alternance 2000 dañu amoon alternance 2000 alternance 2000 dafa am lu ñu seetlu yéen gis nga dire que ñu ci bëy aussi xale ngeen man 2000 damaa voté mooy c'était la première fois ma voté yaakaar gi ma amoon ci soppi ak déclaration yu mag yi ma ci déggoon ak ni ma ko gisee mu glissé ndànk-ndànk ba bu bleu bi devenir un cauchemar Macky Sall bokk naa ko a marre maa ko jiite woon quand ñëw téye Ablaye Wade ne ko doo dem Sénégalais yi tànn Macky Macky ñëw nañu kaay leen ci nguuru ñu ne ko non duñu nguuru pourquoi du ma nguuru parce que lii laa doon bañ parce que xam naa ne ñu bëri bëri parfois dañ ma koy reproché da nga waroon dem nga ànd ak. Euh, duggoon ci nguur gi nga def ma leen tey su ma ci duggoon tey ndax dinaa mën a jot sama liberté de parole bi ma am nii tey. jot ci sama bopp moom sama bopp mun a wax lu amal njëriñ askan bi parce que Ivoiriens yi dañuy tooñ naan et eh, vent bouche pleine ne parle pas bu say jëriñ mm-hmm. feesee doo wax. Mm-hmm. yaa ngi dégg. lu tax je te raconte tout ça pourquoi juste pour te mm-hmm. euh, début alternance yàgg nañ ci am yaakaar. parce que c'est pas la yàgg nañ ci gis ay déclaration yu mag parce que c'est pas la première fois yàgg nañ ci gis ay promesses yu rëy c'est pas la première fois mm-hmm. mais toujours dafa am benn affaire boo xam ne moo yàq 2000 moo yàq 2012 te ma commencé ko gis ci mooy ay déclaration yoo xam ne du am effet dëgg-dëgg parce que jikko woowuñu ko mm. xam nga bu fekkoon ne tey da nga ne foncier mm-hmm. comme li ngeen wax littoral bi mm-hmm. Jaret Mbour 4 et cetera et cetera mais biñu leen falee toujours maa ngi koy nettali fan yi mais Azalaï la leen fekk genewu leen dañoo génn prison dem hôtel Azalaï. waaw est-ce que fayuñu ko seen xaalis aussi. ak ñu ko mën di fayee pour quelqu'un ki nga xam ne danga nga am rupture lañ xaar ci yow. Mhm. dem leen ngeen xool seen archives yi. 2013 je pense. su ma mhm. juumut mhm. bi ñuy def combat wu non au mur ambassade turquie bi ñu bëggoon def ci teeru bi dinaa ci taxaw tuuti. parce que c'est un yu am solo la. Euh, teeru bi ci boppam bi ñuy tabax teeru bi. ñu dañoo contrôle. mosuñ ci d'accord xam nga tax. parce que Terrou-bi benn casino bu benn boîte de nuit la woon bu tudd woon euh, gaal gi lañ fa njëkk a installé. fi Terrou bi nekk nii fi bi nekk dañ fa njëkk a benn boîte de nuit bu ñu doon gaal gi muy def muy lakk ay affaire daf am benn kii casino bu ndaw à côté. Hmm. bañ ko defee ñun boobu ñu ngi nekk étudiant gis nga bu ete bi jotaan nii comme début bi Sénégal la ñu wax été mooy tàngaay bu duusee quoi Dakar hmm. étudiants yi instant bi yëpp dem nañ uti ay survêtement yu rafet ut ay tenue commencé dem di entraîner ji hmm. bu ñoon entraîner ji ci plage boobu la ñu doon woowee plage étudiants yi fu teeru bi nekk nii tey gis nga baie boobu ñu aménagé. Mhm. étudiants yi ko moom la ñu doon woowee plage yi mu dend ak eaux et forêt eaux et forêt seen place foofu la woon ñoom ñuy observer îlot serpent. Mhm. îlot serpent bi nekk à côté. eaux et bi ñu ko doon surveiller à partir de ci booru plage des étudiants foofu tey jii. Mhm. ñu toog tuuti bu alternance 2000 amee. Abdou Diouf Ablaye Wade ak Karim xaw ma nan la arrangé woo. ba teeru bi di yokk di yokk di yokk ba doon hôtel. déjà ñun dañ doon xeex pour que téere bi ñu delloo étudiants yi seen seen plage de mm-hmm. parenthèse maa ngi big up euh, euh, Moustapha Gueye le grand tigre de Fass de tous les temps maa ngi gis mi ngi jug ci xeex bi aussi di wax ne fii ñun fi lañ daan fowee te tey ji fi lañ daan entraîné te tey mënatuñu ca jot mm-hmm. donc téeru bi déjà problème la ñun ñu ko doon xeex far ñu indil ñu non au euh, muru ambassade turque bi ñu jógal ne non du fi am mm-hmm. parce que ndëkkate ci ginnaaw miir bi ba ñuy jàpp ñuy yendu keroog ci violon bi laa mu làq ci ginnaaw mu ëppoon ci ay suuf mm-hmm. làq googu mooy lañ moo tudd azalaay mm-hmm. dañoon xeex téere bi pareeguñu pour que askan bi jot fi muy nooyee mm-hmm. baadoole bi mun a jot ci ngelaw mun a nooy ñu indil ñu azalaay na ko déjji ñi ñu fal bees jour bi ñu leen falee j'avais vraiment envie dem féliciter leen parce que pour la première fois Sénégal am président boo xam ne maa ko mag Diomaye maa ko mag mm. man eh waay bàyyil ma dem forcé même bu fekkee man mosuma ànd ak ñoom awma yow mais xoolal ma ne bàyyi ma félicité leen ani gars yi ñu ngi azalaay est sentir nga li may sentir. parce que y a problème man xeexuma sama adduna yëpp man. mais fan nga bëggoon mu fekk fa Fadel. mais këram wala siège bu passé fu mu munti ñu nekk. mais il vient à peine de sortir de la prison. quand même waxoo balaa muy dugg prison organiser wu ñu am fu ñu nañu dem toog si mbedd mi dajeeg sénégalais. wala ñu dem ci en fait li Azalaï di représenté. li Azalaï di représenté laay wax dans la lutte voilà. ñaareel bi mooy euh, bu fekkee ne nit ñi falu bees comprendre ñu sax enjeu wu foncier bi ba mun a am relation ak ay azalaay ba dem di fa taxaw yaa problème est-ce que ñooñu dinañ ne bu ñu la diggee ne dañ dindi lépp xam nga bi ñuy dem Anse Bernard dama hmm. ñun ñi nga xam ne dañuy intéressé ci question littoral bi ak environnement bi xam nañu depuis 2021 lañ ko doon jox ay mais dafa mel ni ñu ngi làq nit ñi ñu bañ a wax waxu azalaay ñu dem di wax waxu gi et puis suufu aéroport bi nag Léopold Léopold Sédar Senghor moo mujj mais mun naa ne defal récit wu taarixu suufu Dakar nan lañ ko saax saaxee depuis 2000 ba léegi. Mm-hmm. yaa ngi dégg waaye cité kër góor gi ña fa am kër yëpp interroge. surtout mais azalaay azalaay boobu dama fa bëgg a taxaw azalaay kon da nga jàpp ne dañu dañu waroon def euh, seen cheval de bataille azalaay comme Thierno euh, Thierno Bocoum mu ko waxee 7000 mètres carrés dafa bëre. moom la ñu waroon njëkk a du affaire 7000 mètres carrés du ay affaire truc ça veut dafa am dañuy jàpp doom dóor doom dañuy xool ñi gën a faible ñu dóor leen ñi nga xam ne ñoom lañ gën a jege kenn du leen wax dara loolu lay niru parce que dafa mel dañ jege waa Azalaï yi bëgg dem dóor waa Anse Bernard hmm. te suufu aéroport bi suufu aéroport bi hmm. mais lan lañ ci waxut waruñ ko audité wala buñ ko audité wul ñu génnee nan lañ ko soit impôt et domaine ni fexee ba ñi ñi ànd ak ñoom ñëpp am nañ ci hmm. wala ñu àndut ak ñoom wala boog yenn bar xaw ma nu ñu ko defee mais que les choses soient claires nañ ko leeral d'accord nañ ko leeral mhm. ñooñu ñoo lañu war a njëkk a mhm. ñoom lañu war a mën a exproprier mhm. lan lañ waxul ci terme sud yéen a ngi fàttali ñoom ñaata engagement lañ jëloon ci terme sud bi leen falee ba léegi kenn déggul terme sud kenn waxatul waxu terme sud pour donc buñ ñu nax mais nañ ñu prouver ne duñ ñu nax dañuy door a door don am nañ temps maa ngi leen rassurer di leen garantir ne ñu ngi ci Sénégal ak maa ngi koy wax sénégalais yi ñu mel ni ñun ak jàmmis yi question yi muy soulever duñ ko bàyyi surtout benn particulièrement benn mu nekk affaire impunité bi jaral nañu ba lu ko gars yi di waxee ba danaa ee parce que mënuñ di continuer di rey sénégalais yi di rey africains yi ci yëfu ci coowal politique politicien ci coowal bëgg a falu ak bëgg a téye nguur askankat bi di dee te bu ñu faloo duñ ko leeral dafay jox droit keneen mu ñëw rey pour falu te ñii falu suñ alal lañ leen di fale suñu alal lañ leen di dénk gënuñ ñu duñ sëtu sëñ Tuubaa duñ sëtu Baay Ñas duñ sëtu Lat Joor Jóob dañoo xëy rek am fit yëkkati seen loxo ne mën nañ ñu óolu leen jox leen mhm. donc alla fokk ñu reteet leen mhm. alla fokk ñu leen fàttali jamono ju nekk seen engagement démb yàgg naa leen wax ne fal fàtte dafa war a jeex ci réew mi fal rek gëmm ne maa ko fal donc sama xolam ci jël ko def ko yëfu émotion fii laa far rek gëmm tëxlu réew mi rek lañu war a faral réew mi rek ko jar parce que nit ñi quand nit ñi dañuy jàll parce que l'histoire a montré que mm-hmm. ana démb ñu Macky Sall jaraloon dee mm-hmm. kun mar naan taxa naan petit bu ndox amee nga rus ndox amee nga rus voilà ces questions là en tout cas impunité beeg suuf si mm-hmm. loolu suñ combat boo xam ne tàmbali nañ ko avant d'accord nguur gii di ñëw mhm. te promettre naa leen ko fii ci ay bërëb yu fasantikoo ci ay médias yu fasantikoo mhm. que combat wu euh, xale yi dee mhm. danañ ko porter ba benn bu ci nekk bépp deretu Sénégal bu ci tuuru nit ñi xam ko d'accord